salaam guys salaam guys hello everybody yéen yéen am Facha fii sur la IM di leen présenté seen émission Double H hip hop fashion tey tey dama dama am gaabu doy waar ah damaa dugg ba HLM Paris lijjanti fa benn gaabu doy waar buy teg lu nice di représente hip hop galsen ci koonam xaar ma jox leen ko présenté wu bandi ci loo nekk. ça va Facha maa internet yëpp ñi nga xamante ni ñooy suivre IM aussi di rafetlu invitation bi ak sa émission bi Dablash Fashion di promouvoir underground yu mel ni ñun maa ngi tudd Bandi Gale dëkk HLM Paris nekk ci biir Géejawaay fas yéene dëgmal ak yéen waxtaan bu am solo macha allah. waa Bandi Bandi tey boo ñu doon wax kan mooy Bandi lan nga ñuy lan nga ñuy jox tey comme lan nga ñuy tegal ci table bi kan mooy Bandi exactement. bon Bandi benn artiste benn jeune artiste la bu nekk HLM Paris Guédiawaye dugg ci milieu bi depuis 2015 commencé ko Guédiawaye ma jëm ak ay sama sama benn sama benn sama benn bro bu tudd Cisco d'ailleurs moom moom mooy prod sax Cisco production xam nga nekk ci affaire bi 2015 ba 2016 ma génnee sama benn single bu tudd Étudiante après loolu nag moo defoon taba ci côté boobu diggante Géejawaay ak HLM Paris bandi ba tey di bay waaram ba nii mu génnee benn son def ko vidéo mu tudd alarme son bu engage bi nga xamante ni tey gars yi bëri gis nañ ci seen bopp defe naa ni ci promotion boobu lañ nekk sax promotion affaire ba maquette boobu ak Cisco production label bi ak Clash directeur mii produire affaire bi yéen a ko déggandoo ah bandi tegal nañu lu nice waa bandi tey nan nga def ba dugg nan maanaam yow game bi tey nan nga def ba dugg ci quoi lan moo la dugal ci rap. waaw comme ni ma la ko waxee rek influence la quoi ay xarit yu ma doon àndal yu si mel ne waa Broza Crew Ibzo Xat Life Riz di leen di bëgg ak passage ak sama cousin NL49 influence boobu noonu yëpp da see daf see joué. mais ki tax nag ma gën a dugg ci game bi ñu ngi koy woowee Pape si Cissokho alias Cisco mooy moom moom may produire instant yi moo nekk tamit sama manager quoi tu vois moom moo révélé lu bëri ci man ko xam nga parce que au début nekkoon naa mélomane di déglu hip di ko fooy freestyle laa njëkk a mën mais boo xoolee Cisco moo ma njëkk booy am nga booy mën nga bind affaire yooyu noonu xam nga noonu après man tamit ñu commencé di fooy Audacity Audacity et tout xam nga logiciel boobu noonu di di di déglu suñu bopp di kontaan après si lañ xam ne nag franchement parlant am na lu nekk si ñun quoi si lañ ko tàggatee ba mu def lii tey quoi. waaw dégg nañ loolu noonu tey jii bandi hip hop bi doon na lu doy waar et tout vu que hip hop tey faw nga am temps tey instant bii nii yaa koy fay fayagul ak yaa ngi comprendre. dans ce tey nan ngay dundee maanaam tey ak maison de production bi nga nekk nan nga koy dundee ak ñoom nu mu fay demee noonu. waaw alxamdulilah alhamdulilah de façon àdduna dara yombul. tey même bu fekkante ne da ngay nelaw sax metti na quoi parce que effort la aussi tamit live organisation la tu vois à part rap am nañ beneen activité bu ñuy mëne di ko prôné. mais alhamdulillah, ba nous sommes assez matures pour pour mën a gérer suñu emploi du temps quoi tel jour la ñuy dem studio tel jour la ñuy dem répétition xam nga tel jour la ñuy dem tournage vidéo et tout loolu moo fi nekk organisation quoi aussi tamit am nañ méthode méthode bi nga xamanteni ni mom lañuy ñuy té te staff bu nek suñu ginnaw moy mitchindi bi quoi mitchindi boo ko déggee mooy vainqueur ci Swahili yi ñoom ñoo nekk sama ginnaaw gars ñoo la naan bandi ñoo moy call à l'office am nga jour de répétition tey wala am nga jour boo war a dem studio xam nga ñoom ñooy jàpp ci affaire yi moo tax alhamdulilah quoi ñoo ngi ñoo ngi bien vrai que métti na mais sant yàlla ñu ngi koy gérer bu baax a baax. waa bandi tey mi ngi génne woon benn kii bu tudd alarme. tey dama bëggoon nga wax ñu tuuti ci lan lan lu pourquoi ce nom quoi pourquoi nga tuddee concept alarme nga tuddee concept bi alarme lu waral alarme. alarme lu ko lu ko waral moy que ni Bandi ben jeune artiste la comme ni ma la ko waxee rap lay def musique urbaine la tu vois léegi hip hop bu ñu nekk ki di hip hop di engagement et saan bob non dafa engagé parce que xolé da fay dénoncer affaire yu bëri ci état bi suma né état nak gaay yu dañuy xalaat gouvernement et tout mais état ñun ñoko def ak gouvernement fusion bo mo créé état tu vois donc man lima ma mën en tant que porteur de voix moy que sensibiliser alarme bo xolé métaphore la amna alarme en tant que comme cloche wala sonnerie amna alarme en tant qu'artiste, sama plume ak sama voix moy sama arme donc loolu laa mën a use pour mën a sensibiliser ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo dëng parce que gis nañu récemment ay jeunes di manifester wu parce que couvre-feu bi dañ koy yóbbu telle heure arrangé wu leen loolu noonu ñun ay artistes lañu war ñu ko seetaan muy dem état bi tamit gis nañ pas mal de choses ñoom gouvernement bi am affaire yoo xamante ne tamit ñoom ñu ngi koy dund quoi bañ na ko ba sénégalais lambda bi boo ko laaj boo ko posé question dafa la naan. ñaari Sénégal moo bi ci kaw ak bi ci suuf et loolu nekkul lu nekkul lu normal quoi bu dee du li ñuy wax dëgg la Sénégal benn bopp la kon loolu waruñu ko waruñu ko ràññee ñëpp war nañ gis seen bopp ci Sénégal gi quoi nekk benn loolu noonu yëpp nag lañ dajale xam nga def ko ci alarme xam nga depuis nag 1960 parce que boo dégloo son bi am na benn moom discours du Dia bu si nekk. donc kon dañoo dañoo revenir en arrière xam di récapituler ba tey si ba tey jii nii loolu noonu yëpp ci son bi loolu mo waral alarme quoi. Wa donne concept bu dop concept bu doy parce que en tant que en tant que rappeur rek mi ngi koy quoi mais bro est-ce que ya ngi dox ci social instant bi waaw ñun banlieue lañ dëkk mënuñu bañ a dox ci social quoi. on est xam nga ay banlieusards la ñu mënuñu bañ a dox ci social même boo xoolee am na benn association bu ma bokk mais xam nga rek bëgguma ko woon sax wax parce que ñoom des fois bu ñuy def ay affaire du ma si feeñ du ma si feeñ quoi te loolu noonu ci social lay dox ñu ngi koy woowee Jacques xam nga ma xool samedi bii nii samedi bii même ñoo ngi war a def ay don xam nga ay affaire yu bëri quoi mais xam nga rek man bëgguma si di fës carrément quoi parce que tem ñu jàppee ko leneen tam ñu ne ah booy bii nii kat li mu nekk artiste la moo tax mu bokk ci association bi bëgg gaay gën ko promovoir wala bëgg gaay gën ko xam te yàlla xam na ne du lool quoi ñun banlieue lañ dëkk ci loolu lañ mës a ci loolu lañ mës a dox parce que tey dañoo yàgg nekk di xoslu quoi dañuy jóge fenn yor cent franc bokk kook ak suñu moroom xam nga loolu noonu yëpp pour man dañoo forger ci loolu quoi dañoo forger ci loolu kon il faut ñu il faut ñu dox ci social. mënul bañ a nekk quoi. dafa leer maintenant tey jii nii ci biir game bi quoi parce que bari na bari na bari na yu fi am ci game bi. Mm. bari na fi ay ay broda yu nekk ci game ay old school yow déjà new school nga. léegi ci old school yi ñaata cinq rappeurs ñoo xam ne tey jii ñoom ñoom ngay get quoi ñoom di nga leen jégloo yeah question bu xaw a compliqué mais bon. ñi may déglu seen school yi daara ji family gaston de euh, nidof degeti tamit dama ko don déglu lu bari dama ko don déglu lu bari ak xumaan aussi tay xumaan dama koy déglu lu bari yagna dafa leer ñi lim nonu ay ay ndanan lañ ay ndanan lañ ci bir hip hop garsen yagna tey jii nii bandi boo yéegoon sur scène yow da ngay live wala yow ban genre kii ngay kii quoi. <laughs> damay live wala damay playback. non man damay live. tay man laajal sama manager wala gars yi am na concert yu ma dem ba ñëw taxaw war a prester mais du ma joué xam nga lan moo tax. parce que mic bi baaxul wala sono bi baaxul. non nekkul loolu. parce que su ma jógee sama kër di dem concert dama war a joxe quoi comprendre nga peut-être je suis timide nii mais mooy mais su ma yéegee concert wala studio beneen nit laay doon quoi moo tax su ma jógee sama kër di dem studio dama war a dégager benn chaleur léegi chaleur boobu noonu nag il faut nga live nga koy jox gars ñoom ñu la koy delloo dama jàpp ne àq la quoi ñëw ba concert di def ay playback wala affaire yooyu noonu xam nga public bi di la artiste warul doxee noonu quoi surtout ñun tey rappeur dañoo war a live mu tàng jër xam nga li ma la wax comme ça gars yi yëg ko quoi seen ticket mu jar quoi. <laughs> ok léegi de ce fait comme te demee na noonu léegi dañuy dugg ci benn affaire bu doy waar genre que ni boo duggee ci boo duggee concert da ngay live. Hmm. tey da ñu may sa meilleur punchline ñu xool. <laughs> sama meilleur punchline waaw ah, xaar ma jox la punchline bi ma def ci ci ci ci alarme rek. réew mu 10 000 problèmes di joxe solution. léegi loolu waaw parce que réew mi même booy fubal nawetaan gars dañ la naan ñëpp ay coach lañ. comprendre nga tey boo xoolee Sénégal lépp lu xew di nga gis benn nit boo xamante ne nii moom comme chargeur universel lu ñëw moom daf ci am wàll lu ñëw mu am ci wàll. te tey kooku noonu amaana moom moo ëpp problème sax kooku muy jéem a résoudre ay problème am comprendre nga foofu laa ko tënkee quoi. réew mu problème di joxe solution. Euh, Bandi tey bon doon lancer message quoi ngay lancer message pour new school oui. parce que déjà en ce moment bari nañ ay rappeur yo xamné ni moy loolu dañuy dugg ci rap bi et xamuñu lan moy concept rap et tout léegi yow tey lan nga ban message ngay lancer ci jeunes rappeurs yi ni légui tay di jamono ji. bon just di len wax ñu ñu focus. ci seen woy te liggéey liggéey surtout si laay gën a focaliser wu parce que man gawuma tey xam nga nekk benn boy def benn single wala benn affaire xam nga ñëw commencé topp rajo yi wala télé yi xam nga jël ma émission jël ma émission non man doxewu ma noonu quoi man dama bëgg dama bëgg yow ngay liggéey ba gars yi rekk naa sa liggéey tey woo la ne la diw ñëwal ñu def émission mais booy léegi bëgg nañ tey rab tey am bës tey ko tey xam nga yóbbu seen yaay màq tey wala affaire yooyu noonu comprendre nga <laughs> léegi nag li ma bëgg nag li ma bëgg mooy que ni booy nañ job carrière nañ job respect aussi parce que gis naa ay booy ndaw yoo xamante ne bañ commencé rab yàggul may dañuy ñëw rek commencé di clash ay ñoo xamante ne ñoo ngi ci kaw quoi di di leen wax ay mots yu déplacé te ñooñu job moo leen may lool noonu. booy nañu liggéey ñàkk jariñu loolu rek laa am lu ma leen di wax dañ liggéey focus parce que instant je suis mal placé pour wax leen lu bëri ndax maak ñoom ñoo yem benn step mais li ma leen di wax moom man laay def liggéey liggéey liggéey <laughs> yëpp sama gars ñoo ko déggandoo nee na liggéey ñàkk njariñu kon donc euh, message bi yaakaar naa ni jàll na en tey bandi sa diggante ak euh, say euh, say morom rappeur seen sa biir koona nan la fa demee. waaw nice nice d'ailleurs dama xool tey ba ay ay ma xool ay 7 heures du matin maa ngi dégganteek ak sama grande sœur Toussa maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy béggee ak may bi aussi may bi xam nga ñoom ñoo nekk sama koona foofu quoi mais à loolu booy nekk géejawaay tamit man ak man ak gars ñoom ñëpp nice man moom. awma problème ak kenn sauf si am na ñenn ñoo xamante ne tamit daan nañu ànd mais xam nga bañ demee ba gémbi xaw leen jox benn ora bi ñu commencé am benn jàpp mais loolu anyway ñun moom mooy loolu amuñ problème boobu de toute façon ñoo ngi ci suñu ruq ñoo ngi liggéey xam nga boo nekkee real nigga dañ koy play quoi mais boo melee neneen après ñun tamit voilà quoi. en tout cas alhamdulilah quoi ñoo ngi play ak Royal Nigga yi quoi. kon daa am fake nigga yu nekk koñ. <laughs> bu amee ay real dina am géejawaay waxuma sama koñ mais géejawaay quoi. géejawaay. am na mënul ñàkk foo dem am na fake. waaw sama koñ am na am na am na gaa yoo xam ne gaa yoo xam nañ leen ci game bu baax ay fake yu mag lañu. Mm. waaw cité boo leen cité. non jarul cité <laughs> loolu jarul cité xam la moo tax jarul cité maa ñoom xamante nañ te man ak ñoom démb la woon quoi peut-être su ma koy wax nii gars yi su ma cité woon nii tey ñu ne booy bi dafa bëgg buzz wala affaire yooyu noonu mais ñoom xam nañ man xam naa. waaw mais yow di nga xam ci kanam. comme li ma la wax rek. bandi dina liggéey ba gars yooyu noonu tey su ma expliqué duñ ne bandi kat dafa bëgg buzz moo tax mu wax ko. en tout cas bandi mi ngi bandi bandi sama kaw mais nag garaawul coolul en fait bandi euh, tey sa projet bi instant bi nii nan foo ci toll quoi projet yi ba xam mi ngi mi ngi yëg mi ngi jëm ci kaw wala yaa ngi ciy sentir sa bopp et tout comment ça se passe quoi vos projets en ce moment. waaw waaw waaw alhamdulilah pour instant bi mooy ci promo bi lañ nekk ci promo bi lañ nekk ñoo ngi def ay instant bi nag staff bi dañoo kale ni. ay ITV rek la ñuy def buñ ci paree après dañuy def ay xama dinañ dem ci télévision yaatal ko mais avant boobu xam nga vidéo bi single bee njëkk a génn quoi single bi defoon na tuuru rajo yu bëri gars yi bëri doon nañ ko doon nañ ko teg mais bon instant bii nag comme que video moo génn xam nga ci lu lu ñuy wane ci lu ñuy fësal la ñuy gën a dox kon instant bii dañoo tëral benn programme bu ñu paree comme ci chaîne YouTube yi après dañuy dem ci chaîne télévisée yi quoi. ok Bandi mais en ce moment vu que ni euh, comme ni les mots de la société sans tu euh, sa alarme expliquez nous mais mais as dit nii am na affaire bu le président de la république du waaj Nous maanaam euh, rak def autoroute à péage Dakar Gorée yow l'autre, lu si sa Dakar Gorée pour moi c'est quelque chose de bien hein. parce que réew a développer il faut dem beeg dikk bi du Eh, ku xam Gorée xam ne benn benn lieu la bi nga xamante ne nii du sénégalais kese ñoo si ñoo si jëriñoo quoi da ngay gis keneen ku ñëw beneen dëkk ñoo bëgg a visiter gore Gorée quoi lieu bi historique la di ko kon bu fekkante ne yombalal nañu lool noonu ñun waa Dakar tant mieux ah. waa loolu gisuma ci benn inconvénient. ok c'est bien en ce léegi nag comme te demee na noonu. ban message ngay lancer say fans lan lañu wara xaar ci yow tamit aussi waaw non man awma fans <laughs> awma fans ay gaan la am xam nga ay gaan ay xarit la am ñi nga xamantene ñomay ñomay ñomay flow wax deug yalla parce que yombul quoi ben artiste bo xamantene ni mi ngi ci souf gaay diko dolel diko dolel xam nga yombul parce que gaay lu sorti lañ xam te lu sorti am borom te gaay ni di ma flow yeb machallah ñom xam nga séentuwuñu dara si yi lu dul que ni dañoo am yéene ñoo ñu laay wax que ni xam nga band yi mi ngi ci waañ bi mi ngi ci waañ bi di togg lu doy waar ak Cisco production ak sama biir may kay surtout Mose biir hmm. ñoo ngi nekk si waañ bi ñoo ngi ñoo ngi liggéey daal comme nuñ ko yàgg waxee parce que yàlla xam na ni alarme bi ci yoon bi lañu fekk sax bokkul woon sax suñu programme alarme bi waxtaan moo ko indi waxtaan. comme man dama bëgg di di xam nga dama dama tambu di werante affaire yo non dama doon waxtaan ak sama ben grand frère mom daf euh, étudiant la quoi non lool mo indi alarme bi alarme bi ci ben goudi la job alarme bi wo sisko ne ko ay 2 h 3 h du matin wéru koor gi wo ko ne ko dama bëgg prise ben sound mu ne bo xey nga ñew ma xey prise lendemain bi ñu génnee ko lool mo def alarme mais sinon jobon nañ yenen affaire defon nañu projet bi naka pare na sax pare na instant li si des mooy que ni xam nga ñu gën a nekk ci liggéey bi gën ci focus xam nga gars yi tamit na ku nekk def ñaan xam ne bandi seen bandi la seen doom la mu ngi ñëw ak ay projets yu diis a diis a diis game bi dégg naa gars yi dañuy liggéeyaate quoi. <laughs> waaw mais alhamdulilah alhamdulilah ñun moom ñoo ngeeg yàlla. waaw yàlla mooy suñu cumbukaay. <laughs> Légui bandi ce mot de la fin lan la ak euh, instant ils bëgg suivre fan lay jaar et tout. Eh, bandi ko suivre Instagram da ngay def bandi galé mi cindi mi cindi bi M S H I N D I Twitter bandi galé 13 Ma aussi YouTube foofu tamit mi cindi. Comment vous bëgg suivre xam nga suivre Comment bëgg tamit contacter numéro manager 77 194 33 97 wala 78 113 90 21. Comment vous bëgg me contacter après nga call ma ñu affaire bon sur ce je tenais vraiment à vous remercier IM télé xam yow aussi di la encourager parce que man ak yow ñoo bokk yoon bi ay ndaw lañu comme ni ma la ko waxee rek nañ gën a liggéey gën a gëstu aussi tamit xam nga jox ñëpp cër parce que c'est la base yar yar c'est la base quoi en tout cas ñun loolu la ñu jàngal nañ ci gën a focus incha allah tant yaa ngi jubal di dëggal yàlla ji dina la ñiital yoon bi te doo ko doo ko doo ko doo ko regretter maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi maa ngi rafetlu invitation bu baax a baax di nuyu aussi Nabou sama sista aussi tamit di remercier Cisco Production qu'il ménage aucun effort pour artiste bi Bandi Gaale ndeysaan dajee sonn ak clash directeur mi nga xamante ne moo réaliser vidéo bi ba gars yi ñëpp mën ci wax ak waa HLM Paris staff micin di njege maar ak micin di waxambaane bi maa ngi bëgg ñëpp ak yow Facha mu la xale <laughs> ok Bandi man tamit kontaan naa trop ci euh, li ñu li nga nangu ñëw et tout franchement tamit jot amul yaa ma gën a comprendre mais aussi am na lu des parce que waroon ngaa def benn freestyle bu dog xam nga gars yi xam ne ni bandi lim yor mooy lool dafa dafa dafa bandi tamit danga ñoo war a woon sa bandi bandi lu bi ngay bandi bandi nga bàyyi ko woon yow yaay kan Okay, ji samay bar mënul ordinaire ndax du lycée laay rëddee étudiant àdduna université am lañ may diplômé limay daw bu ko say roulé sa kaar àgg teer ci farate rek laay daw loolu ma def homme de caractère so différent ni ci biir nit naa avalé ni vaaki nin dafa latte mu xuus ci ombre no ñiit the same way the same shit so ma amul esprit créatif mérité ma men wu yow turu artiste wala mi chindi mënoo ma jat ci bala fond 24 ans bana fo ñu ay barat ñu baram ko coca cola zik de forme végétable de fond lokoti cons ñambaan sa ons produit Cisco sa zone tu rek la mën a doon dama discret moo tax su may bind doo ma gis ba may distrait discret waralu tableau ñuul te large du déggu samay maa da fucking discret mi cindi <laughs> am nañ lu doble nice ah, mais booy bi ndeke bandi la bandi bandi luwul day bandi la En fait, euh, comme nous euh, l'avons merci à toi d'avoir euh, d'être là parmi nous. Wow, nous sommes dans l'IM Télé. Euh, Xaar leen leneen yi beneen gaay bu top beneen gaay bu cool. yaa ma gën comprendre incha IM Télé lay donne. Cisco Production. ragal alkaati ragal Macky Sall mi nga xamante ni ñoom suñu njiiti dañuy màndi dañuy am ay gel ay ko welcome ci monde këyit dëkk jullit mi penc ñi ko jiite néew nañu ci jukki bayit gëstu xam lu ñuy gaal gaal ngir na sa xel sunu gaal daal yóbbante gaal gaal ubbu làmb rawatina géewu Sénégal njaay constitution xam respecté wuñ ko ñu incarné droit exige loi yow du dugg si tàcc si noo du gudd fan I have a dream moo ma tere ne la Afrique ëmb richesse nangu bootu rek ni sellaw bët gisul boppam moo tax keneen na koy gis xel mu gumba la ñuy muslu du gis gis bi ngay gis bëgg dem te ku la woo mat valoriser la nga jiñ ko utopiste xamoo ñii sax yow xamoo ñii sax dañ day gëlëmal taalal la faar fexeel mel na Alla Dieng giseel maquillage xamoo ñii sax yow xamoo ñii sax dañ day gëlëmal taalal la faar fexeel mel na Alla Dieng giseel maquillage xamoo sax doy na waar pëli Sénégal su doon mouer mu weex soppi ngeen ko melokaan ci fitna la ñuy follee président parce que junni moo ko fal du riche programme non yéen a njëkk a jàdd yoon ba fuwe loi abus de pouvoir bande profitard dafa diabolique ni ngeen koy prôné xanaa nekkatu la de gouverner la société bul ma juger su may lekk avocat yow mal xiyaam justice là gën a ragal ma réew mu dix mille problème di joxe solution àll bee jooy noor ak nawet da koy tooy te président fàtte ñoom la kon gestu leen lu war la ndaxte diggee bor la seen ceere suñu rango ñu koy simba doola yow xamoo ñii sax dañ day gëlëmal taalal la faar fexeel mel na Alla Dieng gi seen xamoo ñii sax Je dis maquillage ça aurait pu être s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner. principismo fiducia